waaw loolu moom euh, bëcc rek wax dëgg yàlla euh, euh, sama adversaire loolu ko ay magam taxawee ak ay partenaire u mbërëm loolu moo leen war parce que ñoo bokk bokk loolu dafa jaadu mais tey man mii boo xoolee Pikine Ama ni mu duggee ni mu duggee Fass man qualité mbër yi ma daan biir Fass biir Pikine Pikine ay roi des arènes rek la fa daan Pikine li ay roi des arènes maanaam ñi nga xam ne dañu upp lamb ñoom laa def Tyson Tyson junior yàlla ko yàlla yërëm Tyson junior bi muy bëre bi ma koy daan bi ma koy daan boobu dégg mësul dégg mu ñëw te ma ci man la mës mës a déggee mu ñëw boobu il était intouchable kenn laalu kenn ñemewul bëre moom te ci man la déggee mu ñëw Eumeu Sène bu moom ñëpp lañ ko bàyyi suñu premier combat ñëpp lañ ko bàyyi nekk champion d'Afrique ubbi la làmb ji parce que qualité qualité yi ma daan quali qualité yi ma daan Pikine sama adversaire ñi ñi bëre ñoom ñoom doole dama leen doole moo tax mais man ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi même si yàlla jibi si yàlla ko yàlla yóru moo ma sut fuuf Tyson moo ma sut xam nga bii daal incha allah mooy sama quatrième victoire ci biir Pikine incha allah te maa ngi ñaan ci kàttanu yàlla baax na Seydina Mouhamed ndax mi ngi góorgóorlu parce que ñu bari dañu jàpp ne fi mu nekk nii sa at mayu la yow amoon de combat bi jox la teg Ama Baldé daan est-ce mu jot ah? dimanche rek mu jot yow question yi nga demee da ma bëgg a sawar rek yow nante la mu jot dimanche dimanche bët léegi mu jot incha allah dimanche bëre bëre dóor la ñu wax ak dóor.

perturbé est-ce que Ama Baldé le jour du combat tey mën na xaar di perturbé Gris Bordeaux ba loolu affecté Gris Bordeaux dans l'ensemble. non man bëri naa combat yu génn yu gën a yu yu gën a rëy combat yi man am naa vécu ci làmb boo xam ne tey am naa expérience boo xam ne pour perturber ci la pour perturber ma ci làmb yombul perturbation ci làmb non yombul peut-être nag ay mbir mën nañu waxante ay wax loolu mënul ñàkk. man man man man man bandi la bandi laa bu at bi sifflé. loo mosul wax adversaire donc ma dem soxna suñu dëkk bu ñu demee coow maa la ko doole. Gris Bordeaux si préparation bi si ban si combat bi ñu préparé yëpp parce que préparé si ban préparation la Gris Bordeaux sensation bi nga am nga amul ci moom ban liggéey ngay am si préparation bi nga def. mooy liggéey rek. ban sensation sa bopp rek. boo liggéeyee mbër bu parce que lamb di boo xoolee combat bi presque duré na deux ans saa yoo préparé ba combat bi ay une semaine adversaire bi dafa blessé dama koy ñaanal yàlla rek mu wéppee mu ñëw mu ñëw jàmm rek man li may ñaan yàlla mooy mu ñëw jàmm rek ba arbitre def suñu diggante ba def peur man loolu lay parce que combat bi trois fois lañ ko renvoyé aw ma quatre fois dafa métti combat bu yàgg la combat bu métti la parce que combat boo xam ne diggante bi rek waroon ñu ci mën a bëri ay yeneen combat taafeer la moo tax loolu dañ koy ñaan yàlla rek yàlla bu ko dara dal yàlla bu ko dara woox moom ay njabootam ba incha ba dimanche dimanche soretul. yi

di ziar ñëpp. waaw man ban ñaari question laa da nga dem arène nationale mu nekk deuxième fois. Ama Baldé bu ko dem tamit mu nekk deuxième fois. bu dul suuf arène nationale dafa nekk lay bëre. sa doom dafa nam est-ce que Gris Bordeaux ci biir préparation. loolu yëpp préparé nañ ko. loolu yëpp préparé nañ ko. ay combat dañ la doon jàppale. amoon nañ ko ñu gis combat bi jàppale bi xaw a métti ko tey bu nekk bu nekk bii te bii a métti bu bëgg tamit nga assuré supporter yi nga ñu ngi la faar bii. non parce que ñun ñun làmb ji làmb combat bu yàgg la combat la boo xam ne presque duré na deux ans mbër même sax combat de bu nekkee dafa mel ne ci trois mois quatre mois si day métti parce que mënul satisfaire ay supporter am à cent pour cent mais ni may woote rek mooy euh, Médina Ndakaaru dafa dañu am ay leader amuñu ay leader politique rek on a des yoo xam ne euh, ñu ngi dañu leen di bëggee di yoo xam ne c'est des internationaux yoo xam ne ñu ngi toj championnat yi te ñu gën a wàll ñu ngi fi vacances nañ jàppale booy yi man waxuma man waxuma ku yëkkati cent franc teg ko ma loxo ma dama bëggee sama ay supporters gars fi nekk di représenter Dakar di représenter Médina ñu am ay inter ñu am yoo xam ne ñu ngi fi en vacances pour ne pas citer comme euh, Dama ngi fi Salou Ciss mi ngi fi ah Pathé Ciss mi ngi fi. Euh, Amath Diédhiou naan suñu rakk la suñu suñu Serigne Ndiaye suñu kanam lañ juddoo ma lay ndooy di sama maanaam di sama maanaam ma tuddee ay Seydou Ndiaye ñooñu ñëpp ay ay ay ay ay ay ay tuugar doomu Ndakaaru lañ te bu ñu fi vacance nañu jël nañu jàppale man waxuma ku yëkkati cent franc teg sama loxo man li ma bëgg mooy ñu développer les moyens qu'il faut Ndakaaru kenn bañ des mooy fees dell parce que billet yi dafa cher billet yi dafa cher trop mais mais nañu galvaniser samay supporters jox leen les moyens monsieur le maire le premier magistrat du Séné euh, de la Médina encore une fois ngi koy woowaat maa ngi koy woowaat Cheikh Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Ba Messi dégg naa neew fii waaye yëg yëg na yëg na sama appel ñooñu ñu dañ leen ni tiitaroo kon bu ñu amee bés yu mel nii dañ ci war a tax ku mel ni Seydou Gueye ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Seck jaraaf ñun jaraaf fu mu deewee ñu deewee fa Aziz Pay dégg naa recevoir na sama supporter sama commune supporter bi mooy pay mooy pay njéeme yaay seen dëkk seen nekk jaraaf ñooñu di woo di woo Youssou woo Mbaye Diop Mbaye Diop taalibe sëñ Mansour di woo Barthélémy Dias le le maire de tous les maires nante maire yi mooy nante maire yi maa ngi ko ci woo Sénégal nag dañu habitude ñun ñun duñu ay nit ñuy sakk jëf ñun man giri nekkuma nit kuy sakk jëf am na ñu fi nekkoon au pouvoir te nekkatuñu fi te ñoom dañ doon sonn ci samay bés ça ne veut pas dire que nekkatuñu fi du ma leen boole su du ma leen tudd du ma parce que loolu wor la ak trahison ancien ministre Amadou Ba maa koy woo ci bés bii di ko convoqué pour mu jàppale samay supporters yàgg na ma ko defal Sénégal nag dañoo gaaw fàtte mais man bokkoo ci ñooñu Amadou Ba euh, Matar Ba ancien premier ancien ministre du sport maa koy woo ci bés bi mu jàppale ma jàppale samay supporters Diène Farba Sarr maa ngi koy woo ci bés bi mu jàppale samay supporters Pape Mayel Diop borom Ndakaaru maa ngi koy woo ci bés bi pour mu jàppale samay supporters Abdou Karim Fofana maa ngi koy woo ci bés bi pour mu jàppale samay supporters Abdoulaye Makhtar Diop grand sëriñ ak Pape Diagne maa nga leen di woo Ismaïla maa ngi koy bés bi pour mu jàppale ma samay supporters parce que bés bi bésu Ndakaaru te ñoo ñooy Ndakaaru te ñooñu yoo ñoom ñooy Ndakaaru Youssou Lakoum maa ngi koy bés bi Abbas Ndoye jël naa lépp teg ko ci loxoom. di wax ne man soxlawuma cent franc yu jóge fi ñëw di ñëw fii ma jàppale sama ma sama supporters yi ñu dugal ma ci ba mu fees ma koos ko jël ko loolu ko coppee